téeméer ak fanweer ak ñaari navire yoo xam ni ci réew mi la ñu dëkk moom la ñu autorisé ngir ñu mën a napp ci waax réew mi bu dee navire étranger yi nag yi nga xamante ni bitim réew la ñu bàyyeekoo nee na 19 la ñu maanaam fukk ak juróom-ñeent sukkandikoo ci ministre bi nag list bi concerné wul dossier yi nga xam ni ñoo ngi woon ci renouvellement lu waral nag ñu publier ko docteur Fatou Diouf nee na mooy dëggal transparence bi jëm ci gestion ressource naturelles yi nga xam ni patrimoine national la te njiiti bees yi woote ko ci 19 bateaux étrangers yi bizarrement amul benn bateau chinois wala russe bu nekk ci liste bi bu weesoo bateau français yi ak espagnol yi loolu nag mën na indi ay xel ñaar ni 132 navires sénégalais yi ndax amul lu ñuy woowee ay prête-nom maanaam bateau yoo xam ni dañu ko immatriculé sénégalais ba noppi fekk ña ko moom ay étranger lañu lu ci mën a am nag yàgg nañoo dégg mool yi di xeex lu ni mel di ko naqarlu léegi nag gannaaw publication bi am na beneen liggéey buy xaar njiitu bees yi muy defi enquête ba xam réellement ban navire mooy dëgg-dëgg sénégalais ak ban moo ko nekkul.